bitik bi amul yàlla boole ñu ne maa ngi moom waaw bisimilah bu fekkee ne moo tax yónnee na fi keroog ba ci dem def ne ma soo bàyyi moom foofu ma

ñu ngi koy ñaan ci barke makrama Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ñaan ci barke génne bi ne ci akoon kër nga choisir yow nga choisir yàgg choisir ñaan ko suñu borom yàlla ko yàlla xam nañu moom daraay li la mooy nit ñi mel ni yàlla bëgg ñu mel nit ñi mel li gën ci seen réew

wax mais fi ma teg fi ko teg mooy ki ko bàyyi dëgg ma la man maa dimbalu ma ci laa bëgg a nekk yal na la ci yàlla dimbali nee na tàggatal la buur yi tàggatal la borom xam-xam yi tàggatal la borom alal yi tàggatal la borom xam-xam yi xam ne ni métti la ñu am ba Afrique am autosuffisance nit ñi sóobu ci liggéey jubal te yërmande mm, waaye nag moo waxoon ne dafay ñëw doomi jàmbur dootu am jàmbur dootu gouverner jàmbur ñaan yàlla barke boobu yal na yàlla yóbbu ci sa teewaay ci sa fekk ba lim li waa Sénégal bëgg ci réew mi doomi Saalum yi di ko doxal di ci boole ñëpp tamit dimanche la delluwaat waaw contrôle dégg a dégg nañu sa waxtaan ci homme politique bi naw waaye dalal nga suñu kan suñu maa ngi dégg yaa ngi teeloo sa bopp waaw voilà mbokk yi ginnaaw li nga xam ni mooy ziar bi nga xam ni kii di député maire euh, honorable Abdoulaye Wilane ñëw na tey ziar si ki nga xam ni mooy Cheikh Mahi ñas gannaaw nag ba mu jógee ci ziar gi jébbal ko ay kàddu dañ koy daal di rek euh, laaj euh, tey lan ban yëg-yëg la am bi mu xamante ni ji seet si nag ki nga xam ne mooy maanaam tey xalifa bi ci sëñ Mahi Niass honorable ñu lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ana waa Ndoukoumane. ñu nga fay sant yàlla. yaakaar yàlla. waaye di gërëm mag ñi. rawatina Mawlana Cheikh Ibrahim. Alaaji Ibrahima Niass Baye. waaye di rafet lu taxawaayu. Salifa Mahi Ibrahim. ñaan yàlla. mu yàgg te wér yàlla tàggatal ko jamono. buur borom xam-xam yi borom xaalis yi borom mécc yi waaye yàlla dimbali ko nag njaboot gi mel ni mu bëgg ñu mel dañu ñëwoon doon ko yee salaat suñu cofeel suñu wegeel suñu fonkeel suñu naweel ci moom wax ko ne ko li ñu ko dégg mu di ko wax li ñu ko gis mu di ko def dafa dalal suñu xel dafa dolli suñu yaakaar waaye nag di ko ndokkeel bu baax moom ak ay rakkam ci taxawaay bi ak ci dundal bi ñuy rafet yi nga xam ne nii moom lañ fi fekk mag ñi bàyyi leen lii moo doon tànk yi tànk doom la tànk yi taaliba la tànk yi xam ne nii euh, xeeb naa samay ñaan jëm ci sëriñ moo tax maa ngi ñaan yàlla lu yàlla bind tam gëm yàlla li ci jamono ak li ci jaww ji ak la ca barzak ñu dimbali ñu ñaanal yàlla Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim yàgg te ko dalee ci magam ji Alaaji Ablaay ba ci Cheikh Ahmed Tidiane bi ñuy jooy te noppeeguñu nga ca barzak yëpp te fàttewuñ ci Cheikh Mouhamadul Haadi yal na yàlla yeesal yeesal ñu dalak yërmande ci ñoom yéegi leen barzak rasulullah yokk leen leer te barke seen njaboot tànk yi tànk yi waa Kaffrine la waaye tànk yi waa parti socialiste la Sénégal toll Sénégal parti socialiste moo ko yóbbu woon indépendance parti socialiste parti mag ñi la ñu ngi ñaan yàlla dal am ci njaboot nag mën naa tasaaroo waaye ñu ngi ñaan yàlla njabootu solis dajaloowaat nekk benn bu ñu àndal nag di liggéey pour réew mi dinañ seq yow teraanga suñu ànd ba buy yàq du ñun waaye nag wax dëgg yàlla feeg parti solis jotul ci réew mi Sénégal du jàkk kem ni ko mag ñi bëggee woon ci zaahir ak baatin yoon mhm. nag yal na yàlla dimbali ñu ko parti si yore réew mi ci cër yëg Senghor yore woon cër yi Abdou Diouf yore loolu moom danañ ko ñaan ci bés bii ci kër gii sëriñ bii ak ci weer wi ndax fii dong la ko fi nekk nit di kër ji nii loolu dafa tekki loolu dafa tekki ni euh, maanaam élection 2024 euh, yi ñuy jëm parce que yow bu neexee nga xàll maragaan mm-hmm. waaye man kàddu mm-hmm. kàddu taalibe mm-hmm. kàddu nit koo xam ne yàlla lim ñu bàyyi ci àdduna weesu ñaar yi ñaan ak sarax ak sarax danañ dikk doon sëriñ bi def suñu sarax mhm. waaye ñaan yàlla ñaanee ko ci buntam ñaanee ci làmmiñam ngir Parti socialiste yore mhm. neex nag xalaat